je porter plainte je crois bien la police Nous police pasteur, Pastef nous police à père, nous police ou c'est la police nationale c'est la gendarmerie nationale c'est l'armée nationale quand on parle de quelque chose de national ça appartient au pays am naa yaakaar ne man li ci sama xalaat li xew démb du démocratie du leneen mooy maa tey def kër jàmm nee naa la perquisition dugg ci biir kër du lu interdit mais dafa am li ci yoon wax yoon dafa am lu mu ci tëral wax ko ko day am day am mandat boo xam ne ne juge bi moo koy defar wala ñu topp la dara te tamit da ko war a yëg buy am bu ñuy dugg sa biir kër da ko war a signé ngeen ànd lépp lu ñuy visité nga fekke ko c'est pas le loolu nag mu nekk lu doy waar loo xam ne ne yaakaaroon naa yaakaaroon naa ci sama xalaat jub jubal jubanti du acte yii lañuy pose posé man foogoon naa ne sama xalaat ñii falu tey en commençant par Ousmane Sonko moom laay njëkkee moom laay tàmbale yaakaaroon naa moom bu amee doole ci pouvoir walla falu ci réew li mu daan waxee di wax di waxaat di sos di sosaat am naa yaakaar ne bu foloo yor pouvoir Sénégal dina ne comme nous, ñun lépp lu ñu comme lépp li nguur bi fi passé yim avons baxul mom installé une situation politique diko ko man Farba Ngom d'accord ci des comptes kuñu denk alal réew mi mu nekk ay milliards ñu denk la ko c'est normal nga ñëw rendre compte réew mi alal bi ñu la joxoon foo ko jaarale c'est pas interdit tàmbaliwul ci ñoom te beneen nguur bi leen na la ut aussi du du yem ci ñoom mais li ma jaaxal lima ma d'accordul ci ñoo xamné né wala mu nekk reddition des comptes ñukoy transformer à des règlements de compte ñu bañ ko transformer à des règlements de compte loolu amna ci yaakaar té ci lima ma fu rew mi tollu tay ñuy xol Sénégal ci walu démocratie dafa am nu ñu wara doxale rew ludul activité politique ou la situation politique nous ko instrumenter des gens qui doivent avoir des comportements républicains Moi, la police la gendarmerie y compris avec l'armée je dafa am solo ci biir réew reddition des comptes je ne suis pas d'accord mais quand tu parles de reddition des comptes ana Farba Ngom ak reddition des comptes j'ai pas peur man sorina fof. foofu bu ñu xamoon Dingi djilon di ngi jëloon di daara wuro koli ak fi ma Sorina sori naa fi may tiitee genre man mais réduction des comptes réduction des comptes c'est normal Moi, dénk nañ a ay milliards réew mi nga ñaari at na askan bi xam fi ko jaarale mais man 2012 ba Macky Sall génn pouvoir lañ ma dénk mais nak dënku ñuma dara te waruma am xaalis pourquoi lan lañ ma dénk man aussi ma tégal leen leen je suis un député à l'Assemblée nationale 12 ans, j'ai trois mandats. À ma qualité de député, Macky Sall fallu en 2012 je suis Nous fii nous yor nguur vérifier assemblée nationale ban député bi si les 165 qui ont le salaire kenn ko amut sauf chaque mois chaque heure que Dieu fait les deux millions et quelques de ñuy fay député musuma dem signé man indi dama bi Kumba dem député ak Ramata Seydou des salariés, nous dem salaire yi ñu Aliou Ba am ma koy doxalee ma mais musuma nous viré ko ci sama compte musul am député la député c'est mon droit j'ai été élu comme le président de la République c'est une élection c'est mon droit buñ ma don fay weer mën nañ suis duggal sama biir compte ndax man mako mom mais j'ai été toujours là pour di xalaat euleuk mo waral tous les 12 ans de député musuñ m'a viré zéro franc sur mon compte en tant que député regardez-moi à ma qualité de maire commune des Agnam population yi ils n'ont qu'à vérifier et aujourd'hui ils sont l'état lu les neex ñu xam kon alerter ce qui s'est passé hier hier moy dem keur jaambur ak nima len ko waxe benen bi encore j'ai vu bima ma Fouta le journal témoin bind bolé ci ñi nga xam ñu naan Farba Ngom interdit de sortie du territoire sénégalais loolu moom man duma bàyyi noonu géejuma tukki sax y a semaine euh, su ma waroon tukki suba damay jënd sama billet avion dem aéroport man la su ma demee aéroport ma génnee li nga xam ne xëy na même buñ koy politiser ma tagal leen ko ñu xam loo xam ne ne droit bi ma may ma war a mën a tukki te jamono juñ tollu ni munuñ ma tere tukki budé yoon lañu wax nak ci walu droit ak loi ndax assemblée nationale est déçue existitul ci walu a été dissoudre nañ ko mais assemblée nationale bu fekké ne dissoudre nañ ko

Farbango Ngom Ousmane Sonko Momuko, ko est le dul ñun moomuñu ko Sénégal ñu Anna ana Senghor ana Lamine ana Abdou Diouf ana Abdoulaye Wad, ana Macky ça va devenir le passé dans l'avenir article 87 de la constitution de Fonet. le président de la république peu après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale prononcer par décret la dissolution de l'Assemblée. Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature le décret de dissolution fixe la date du scrutin koyddi ko noon laawol ne yemiri alaamu waawa yettaade so laamu sohlii galle ma udditaa kono ma kaalda ma tina ciññinaa jaɓa so ɗum ne waɗee darroto min to ɓe ngarii to toon ɓe tawnoondu ma ɓe ngaddi kayit min mi yiya kayit mi annda laawol ne yemirim kono so kayit arani fayi haɓɓede kay kono wona min uddito mboɗa udditaɓe gallam taw koye force udditde gallam taw koye force taw mi kayit waɗani ɗum mi watta ɗum heddi noon paame ko yaare ko eyyi onon noon wonɓe ɗo eɓe wona ɗo fof ko ɓen kaldanmi ko yaare jokkitire miijoji mon an ko ɓooyaani ko aan ousmane ummoɗaa ɗo njaha matam holko mbatta matam holko ngaddanoɗaa min haalnam ko ngaddanoɗaa min fittude aɗa tawi makki sall ne ƴetti yimɓe haa heewi ne pitti haa région fof laaɓe ngara mbiya ngannduɗaa ko fittude min gona ha gaɓe amin gandi politique amin gandi politique hankadi hayso komin almuɓe politique komin almuɓe dursuɓe neɗɗo haalantamino politique komin paamani onon noon kaldanmi wonɓe diaspora foof goto fof yo artir hakkille mum o yahate ko wona farba gom tan ene ɓurimi doole goɗɗum e woɗɓe ɓe gona farɓe ngo fof nani heen gooto pop yo darnu programme mum daro daro yiye hoore mum d' abord eyi heddi goo noon ɗum ɗo mi wawano waade wadde ni mi haala no leydi ni mi tinani noon mi heɓani leter mi heɓani note kaɗo mi yaltude leydi ndi mi sikkani kadi seno wona pasque normalement so wona taw ko ɓe mbela ɓe mbaɗi hanki ko ɓe mbele kadi ɓe mbaɗa ɗum ɗum kadi ne ko noon tan wona walla wona kono ko heddi ko kay ha assemblé national kesso ara komi député hay sa wotta luwani kala avantage mo député heɓata ka dokkateɗo ɗum woni droit ma

su ma ko waxoon te awma preuve am na ñoo xam ne ni xam nga leen ci ñu ñu mënee manipule mën nañ ko doxalee leneen looloo waral nag lii avant sama discours walla may xalaat di wax dama koo gënne joxe film baa ngi nii na ko àdduna bi yëpp gis sama kër démb lañ dem police yi ànd ak Jérôme di le garde corps biñu japp jàpp la police am nañu capacité tay képp ku zérom jokkoo won ci walu téléphone wala sëkk ak mom dara ñu tracé ko nañu xol man xamna ko lool je le connais mais wuñu ci walu situation man ñu war ma enquêter loolu amul té loolu même buy am dugg sama biir kër quand même loolu sama droit la dama koo war a yëg xam ko jiitu leen ubbil mais buñ ma fekkoon foofu ne dogal ubbi te awma kayit bon mënoon nañ ma yee mais du ma ubbi ndax kayit moo may ubbiloo kayit moo may ubbiloo waaw lii daal bëggoon naa ko baaxee sénégalais ñu xam li xew film yaa ngi noonu euh, police nationale aussi ak gendarmerie national yëpp